mbokk internet yi maa ngi leen di nuyu te di rafetlu bu baax a baax ni ngeen di àndee saa su ne ak programme mu 5 TV ma ñëwaat ak yéen ci décortique bi ñu leen di defal série maîtresse d'un homme marié tey nag mu yem ak épisode 27 bi ñu door ko ak séquence bu njëkk bi euh, biram nag commencé na di fiire ki nga xam ni moo di euh, Jalika ndax dafa ñëw kër yaayam fekk fa xale yi ndax mu xam ni Jalika su génnee fenn rek la mun a dem te mooy ci euh, Tayru loolu nag métti ko ndax li ko gën a métti sax mooy li tax Jalika dénk ko ay doomam waaye mu dem di ko dénk yaayam yaayam mu mel ni nag biram li ko dal euh, moom moo ko teg boppam olof Njaay day faral di wax naan alalu ku sàggan nit ku farlu rek moom moo koy for ndax gis nañu ni biram mosul euh, toppatoo jalika ba mu nekkee soxnaam faale wu ko woon xamul woon valeur am léegi nag mu xaar ba tey ba mu ñàkk ko mu soog a nekk ci ginnaaw euh, di ko daw di ko topp waaye mel na ni si trop tard ndax jalika xamal na ko bu baax a baax ne ko rek jege bi mu jegewaat ki nga xam ni moo di tayru tax na mu xam ni amul benn sentiment ci biram lu dul amitié ñu jàll ci maam maam Binta Anta nag moom moo ngi toppatoo bu baax a baax waaye dafa fiire ki nga xam ni moo di Jalika te nag bëggul sax Jalika daal di jege eh, papaam ndax nee na ay souci rek la koy andil mu mel ni kon eh, maam Binta li ko yëkkati eh, mooy rek papaam daal di nekkaat ba dem ba réconcilier wu ak ki nga xam ni moo di yaayam mu mel ni kon jigéen li ñu naan rek dafa fiir day àgg ba ci xale yi ndax tey jii ñu xale yi bu ñu sañoon seen papa ak seen yaay ñooy nekk waaye bu ñu sañoon duñ gis seen papa ak keneen wala ñuy gis seen yaay ak ak keneen loolu nag daanaka doom yëpp ñoom ñoo ni mel ndax doom bu nekk boo sañoon say waajur ñooy eh, nekk ñu jàll ci beneen séquence Amidou nag bu moyuwul dina yàq mariage u ak Moustapha ndax Moustapha saa bu gisee rek ñoom ñaar eh, seeni waxtaan ak déggoo bi nga xam ni am nañu ko eh, du ko neex ci xolam da koy métti Moustapha nag dañu koy comprendre ndax góor bu nekk góor nga te nag kenn bëggul sa jabar am beneen góor bu koy wéttali bu dul yow loolu neexul ci benn Moustapha euh, li ñu toog ci kër gi defuñu dara moom moo ko waral euh, ba tax mu wax Moustapha ni ko euh, day jëlaat liggéeyam donte nag Moustapha d'accordu ci ñu jàll ci Cheikh Cheikh nag Cheikh Diagne si na rek ngir jëlaat Lalla Lalla itam ànd na ci ak moom mu mel ni kon loolu la ñu naan namm ca yabu ca ku la ca ba max nga jël ndax ki nga xam ni moo di Lalla li ko Cheikh demandé en mariage loolu la doon xaar bu yàgg-yàgg ñoom ñaar ñëpp nag dafa mel ni sagu rek moom moo leen Euh, mi ngi dess mu melni nak ñom li ñu def moy la meilleure des décisions euh, ndax nit mom bu ngeen démé ba seq njaboot yaakaar naa tàggalikoo waru len waaye da ngeen wara nek ngir rek sen euh, njabot mën mag ci jamm baña am benn problème cheikh nak nouvelle bi neex na ko ba tax mu dem wax ko yaayam waye gis nañu ni yaayam mère Diagne mom le sey bi gëna neexati ndax mom masul nangu rek ki nga xamni modi cheikh ak lala di tàggale ko ñu jall ci dalanda dalanda nak mom waxal wax na résina ni ko comportement ki nga xamni modi am Amidou euh, vers Racky da koo comprendre ndax Amidou day gis ci Racky jabaram ji nga xam ni moom moo gaañu woon ndax dañoo niroo trop trop euh, mu mel ni kon ki nga xam ni moo di Amidou dina métti trop mu sooy Racky ndax tànk mi ngi nekk ak Racky euh, xelam day nekk si ki nga xam ni moo di jabaram boobu tey nak day mel ni genre loo xam ni luy mottali la lu koy mottali lay doon ci Racky mu mel ni kon dina jafe trop ñoom ñaar ñu bàyyante ñu jàll ci beneen séquence Jalika nag moom wane na ni nit ku am ngor la la tey nag du fàtte démb tey nag nekkul koo xam ni day sakk jëf ndax ki nga xam ni moo di Tahirou ba mu amee problème ñëpp abandonné ko Tahirou rek la gisoon moo ko jàppale ba tey jii mu nekkaat ci société bi moom it tey bëgg na daal di euh, fexe rek ba Tahirou li mu ko defaloon mu daal di ko koy delloo te mooy soutenir ko jàppale ko ci moment yu difficile yi nga xam ni ci la euh, nekk loolu nag mooy yëfi gor euh, dëgg ndax nit bu la jàppale yaakaar naa yow it boo ko tane da nga ko war a jàppale ci Fili euh, ak Lalla ñoom nag ñoo ngi waaj seen mariage waaye Fili moom dafa kontaan bu baax a baax ndax lii la mës a mbëbët te it nag lii la mës nekk di xeex te mooy Lalla ak Cheikh daal di nekkaat réconcilier wu waat loolu nag tax na tey xew bi mu def ko ndam ci moom kontaan ci ndax nee na rek victoire la Mame Binta nag gis nañu ni moom promettre na Yolande ne ko dina def le tout ba daal di réconcilier papaam ak yaayam mu mel nii Mame Binta li mu bëgg euh, donte nag idée bu rafet la waaye moo di Tahirou même bu accepté nekkaat ak euh, Dalanda euh, nga xam ne du ci am benn problème Dalanda moom moo ko dul nangu ndax Dalanda dafa suur Tahirou ba pare te nekkul rek di genre euh, di bàyyi yàppaat ñu jàll ci Lalla Lalla nag moom wax na ki nga xam ni moo di procureur xamal na ko bu baax a baax ni ko day marié wu ak Cheikh jaay procureur nag moom am na xel xam na ni boo toppee ci dara ba motu see jot dangay ngay arrêté tax na rek mu arrêté daal di ñaanal Lalla yi waaye Cheikh génnagu ca ndax ki nga xam ni moo di Leyla bañ na rekk ne du ko bàyyi même si bu fekkee day takkaat jabaram moom nee na yoonam nekku ci mu mel ni Leyla foo moo ko tax a jokk ak Cheikh ndax xamal na ko itam xalaatul bàyyi sëyam bi nga xam ni moom lay sëy kon Leyla mën nañu ni seytaane Cheikh Diagne la dafa nar a ñëw rek daal di yàqati viwam comme ni ko Marème defee woon mbokk internet yi nañu leen topp ba xam fu waneen di mujj ki gëtam waaye laata boobu woyee leen di abonné ci 5 TV te bu leen fàtte nag bës si ngeen di jot vidéo yi ci saa si jërë ngeen jëf et à très bientôt incha allah.